soxna may la ñu lay tuddee yaay soxna baal yaay am su bange bokk yam day baal du daw kuy sa baay as borom du tumaan Libre to God. Je crois que j'ai perdu like 5 kilos. Mm -hmm. I can't anymore. Like, I'm dead. Like, Ah, ça y est, j'espère que t'as enlevé. C'est les photos. Vous les bonnes questions. Zézé. Zézou. Zézou. Là, il va Thank you. Bon, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour Ndaw, Mansour Ndaw. ah samay baay Mansour Ndaw jàmbaar ah samay baay Mansour Ndaw jàmbaar Mansour Ndaw jàmbaar Mansour Mansour Mansour Mansour Ndaw dëgg du neex Këru Ndeye Fatou. VIPinfo.net. VIPinfo.net. VIPinfo.net. Votre nouveau portail pour découvrir toute l'actualité VIP partout dans le monde. En politique, économique, culture, santé, sport, religion, faits divers, musique, people. Confiez vos reportages et événements à VIPinfo.net, le number one des grands événements. Vous pouvez télécharger l'application sur Play et rejoignez sur Facebook en mettant juste VIP Info et YouTube VIP TV. Pour vos pubs, à plus nous. besoin d'avoir des soucis sur l'actualité qui se passe all around the world. Votre site généraliste est enfin arrivé. Ici, l'actualité est vrai, je crois, je crois que j'ai perdu la chaîne. I can't anymore, like, I'm there. Ah, ça me fait ça tout le temps. Oh, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour, Mansour,

yaay soxna baal yaay am lu bànge bokk yam day maa du daw kuy sa baay as borom du tumaan moo tax commune commune bi yëngu na ko nun moo nu taxaw waay moo nu jàpp waay moo nu jàppale soxna Mominatu Kébé ak Sadi Sarr ñëw fu ne la danañ la fekk waaye fu ne la danañ la fekk yal na yàlla guddal ko fan Kébé yal na la yàlla ngay wir yaa nu sagal waaye yaa nu teral soxna Mominatu Kébé ak Sadi Sarr Dior guddal fan al muminatu al muminatu al muminatu al muminatu